الظلام الحمد لله رب العالمين الحمد لله أعلى معالم الإسلام وجعل الفقه في الدين من أحسن المرام وبين لعباده المؤمنين معرفة ما فرض عليهم من الشرائع والأحكام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مبكي المصباح تي في نيوغي لين دي di yéen ñi nga xam ne yéenay suivre chaîne bi ak ñun di leen ñaanal suñu kàddu gi yàlla na leen fekk ci jàmm ñoo ngi leen di présenter téere boo xam ne nii moom la ñuy wax al axdari muy téere fiq boo xam ne nii téere mag ñi la euh, li tax ñu taamu ko nag mooy mag ñi téere fiq yi ñu doon jàng démb nga xam ne kenn mënut a dégg fiq te jaaroo si ndax mën nañoo wax ni moom mooy cëslaayu fiq mooy base bi nga xam ne képp ku bëgg a dégg fiq il faut que nga jaar si téere yooyu nag ñu taamu si téere bu ñuy wax al axdar yi ki ko bind nekk ku ñuy wax abdourahman abu zeydin ibnu saghir al axdar yi mu bokk ci ngirum imam Malik mu nekk téere boo xam ne nii dafay seddalikoo ñetti xaaj xaaj yooyu bi ci jëkk mooy dafay wax mu kallaf bi ay jikkoom yi mu war di ko def ak jikko yi nga xam ne jomb na ci moom mu war koo bàyyi ak li araam ci moom nga xam ne mën nañu wax nii moom mooy introduction téere bi nga xam ne dafay wane ni ab jullit bala moo nekk jullit bu mat sëkk nii la war a mel ñaareelu chapitre bi muy ñëw nag di wax si fiq lan mooy julli dëgg dëgg julli nga xam ne danaa wax farata yi wax sunna yi wax ngëneel yi wax julli place bi mu am si lislaam ñetteelu xaaj bi nag mu ñëw sa si njuumte yi nga xam ne bu gaaree doomu aadama bii julli moom naka la koy defaraatee ba jullem gogou du yakku téré bi nak muy téré bo xamni ni mak ñepp si lañu jaar bu ñu waxee mak ñi nak moy suñu mag yi kon ginaaw bi ñu leen nuyo di tàmbaleeg yeen si dars bi nga xamné dars bu la muy al akhdari ñoo ngi leen di ñaanal yeen ñi nga xamné yeen yi suivre al misbah tv senbok mbok sen xarit di oustaz adam diop mo nara and ak yeen ci émission ci dars bu bes bi nga xamné munta ñak ci dunduk doom adam kon ginaaw bi ñu santé borom bi nga tabaaraku wa ta'ala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di sante borom bi nga xamné mom mo ñu sak te yit mo ñu sant jaamu di wax né amul benn buur bu ñuy jaamu ko dul yalla di wax ne suñu yonent suñu sang ki mag si ñun moy muhammad rasulallah kon téré bi nga xamne moy téréel téereel yi li ci jëk tàmbali moy kan kan moy mukallaf motax da fay wax ne awwalu ma yajibu ala al mukallaf tasxiixu imaanihi summa maarifatu maa yuslixu bihi farda aynihi li jëkk a war si mukallaf maanaam awwalu maa bu li jëkk a war si mu kallaf mooy mu wéral ngëmam mu kallaf nag mooy kan mu kallaf mooy ki nga xam ne majeur na te am na xel moo xam muy góor wala muy jigéen kooku mooy mu kallaf tekkiwul ne mu kallaf mag lay nekk déedéet mu kallaf képp ku majeur te yaa ngi ànd ak sa xel rek yow mu kallaf nga kooku nag bala moo def dara li jëkk a war si moom mooy mu xam mu mu ràññee ngëmam xam li yell si borom bi tabaraka wa xam lan moo jomb si moom xam lan moo war si moom loolu mooy mu wéral ngëmam tasxiixu imaanihi bu ngëm loolu wéree mu gëm juróom benni ponk yi gëm yàlla gëm gëm gëm yonent bi ba pare gëm malaaka yi gëm yonent yi gëm téere yi gëm dogal ba neex ak ba naqar yépp su ko defee bu loolu wéree si moom mu ñëw nag jéem a xam nag lan mooy defar diineem su ma maarifatu topp mu xam maa yuslixu li nga xam ne mooy yéwénal farda aynihi faratay jëmmam su ñu waxee farda aynihi mooy farata boo xam ne nii yow rek yaa ko mën a defal sa bopp sa faratay jëmm sa faratay bopp xam nga fard ñaar la dafa am fardu aynin ak fard kifaaya ay aynin kenn ku nekk yaa koy defal sa bopp moo tax ñu ni farate jëmmam waaye bu dee fardu kifaaya bu ko ñenn ñi defee rek mm, wàcc na ñeneen ñi waaye fardu aynin kenn ku nekk yaa koy defal sa bopp moo tax mu lay ñëw nag di la indil misaal lan mooy fardu ayn farata bi nga xam ne sa faratay bopp la ak faratay sa sa faratay jëmm mu ne ka ahkaami salaati lu mel ni atti julli xam nga julli amul kenn koo xam ne nii yow keneen mën na la koo defal amul kenn koo xam ne nii it julli dana la wàcc ndax julli moom dangay jaamu yàlla ba ba ba dee dikkal la faabud rabbaka xatta yaatiyakal yaqin loolu muy julli julli du wàcc kenn danga dem sax ba léeg-léeg sax soo mënula toog sax nga tëdd julli dem ba la ngay la ngay gën a def bu boobaa julli du la wàcc kon lu mel ni julli wa tahaarati ak làpp ay attey laab nga xam lan moo aju si làpp ak man ndox moo ak man ndox moo baaxul naka noonu it wa siyaami ak koor lu mel ni juróomi ponk yooyu nga xam ne moom mooy juróomi ponk lislaam ginnaaw bi nga seedee ni ñaar ñaari seede yi te mooy yàlla ak yonentam julli koor natt azaka dem màkk soo ko manee juróomi ponk yii juróomi farata la yoo xam ne nii kenn ku nekk sa faratay bopp la moo tax mu joxe ci misaal ka ahkaami salaat lu mel ni àttee julli wa siyaami ak koor léegi bi mu waxee ginnaaw bi nga wëralee sa gëm yàlla xam lan mooy say farata léegi nag muy wax nag lan moo war si mukallaf mu commencé nag wa yajibu alayhi kon alayhi boo gisati rek alal kallaf maanaam alayhi boo gisati rek day delluwaat si mukallaf mooy wa yajibu alal mukallafi war na si mukallaf bi wa yajibu alayhi war na si moom mukallaf it an yu xaafisa muy wattu ala xududillahi si dëli yàlla yi bu ñu waxee dëli yàlla mooy frontière yi la yàlla yemale nga bañ ko jéggi na ko wattu sàmm ko ba fi la yàlla yem loo doo ko jéggi loolu mooy xududillahi xam ngeen sax alxuraan mi ngi yox ni wa man yataadda xududallahi faqad zalama nafsahu képp koo xam ne nii jéggi nga fi la yàlla yemale say frontières yi la yàlla wax bul ko romb ku ko romb rek yaa tooñ sa bopp kon war naa war a xam fan la ko yàlla yemale ak fu mu warta dem ak lu mu warta jéggi loolu war na mu kallaf moo tax mu ne wa yajibu war na alayhi si moom an yu xaafisa muy wattu ala xududillahi si daali yàlla yi ويقف موي تخاو نك عند امره سي نديغلم موي تخاو سي نديغل ييكو يالا سانت مو ديف سي لم سي مان ونهيه مو تخاويت سي تري ييكو يالا تري مو باييكو كومبليتمان مانام نديغل موم داغا سي ديف لاغا مان وايي تري موم داغاي بايي ليب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ديف لو باخ digle lu bax taxaw ci jëf lu bax waaye nak téré yi mom da ngay bayyi yépp motax wa yaqifa fay taxaw mom mukallaf eh, inda amrihi ci ndigalam mom borom bi tabarak wa taala wa nahyi ak ay téré war batay war na ci mukallafit muy tuub jamono bu yëgee ni def na bakkar motax mu tek ci waya nay tuub allah jëm ci yalla subhanahu tudna ak mu kallaf war na si moom saa yu yégee ni def na bàkkaar rek mu gaawantu tuub ndax bàkkaar yu bari te tuub néew lool mooy yàlla bari te jéggalu yàlla néew lool lool day indi léeg-léeg merum yàlla te merum yàlla mooy mbugalum yàlla moo xam ne nii daf koy wàcce te loolu dara du ko indi lu bàkkaar moo tax mu ne mu kallaf moom dafa war di gaawri tuub moo tax mu ne waya tuuba nay tuub ilallaahi jëm si yàlla subhaanahu tudd naa sellam buy tuubit si kan lay tuub si borom bi rek lay tuub du tuub si keneen moo tax mu ne day tuub jëm si boromam qabla an yasxata alayhi balaa merum yàlla di wàcc si moom balaa sànjab yàlla di wàcc si moom yàlla meram xajul si àdduna léegi léegi rek mu mosal ñu tuuti si mbugalam rek si ay jaamam rek yu tuuti ñun duñu ko mën a supporter wala duñ ko àttan te loolu bàkkaar rek ko koy indi kon war na si mukallaf muy tuub balaa merum yàlla di wàcc si moom léegi nag muy ñëw nag di la wax nag tuub nag ay chartam ndax loo gis dafa am charte ngir yàlla nungul la say tuub charte yii la borom Laxdari wax mu ne wa shuruutu tawbati charte tuub li si jëkk mooy an nadamu ala ma faata da ngay rëccu si li weesu maanaam bàkkaar yi nga doon def bàkkaar yu weesu yi bàkkaar yi nga xam ne démb la woon wala la ko weesu mu ne yooyu yëpp da nga koy rëccu nit ki nag li mu rëccu dootu ko defaat moo tax mu ne annadamu ala ma faata ba pare nag wan niyatu mu yéene nag allah yahuda mu bañ a dellu ila zanbin si bàkkaar bu waxee zanbin mu def ko nakira mooy bépp bàkkaar bu mu mënti doon moom day yéene ni dootu si dellooti comme que rëccu nga li weesu yéene li des sa kanam ni dootoo dellooti si bàkkaar fii ma baqiya si li des min umri yi si dundam kon tuub ñaari sart la charte bu njëkk bi mooy dangay ngay rëccu li la weesu charte ñaareel bi mooy liñ des si sa kanam dootoo dellooti si bàkkaar yéene boobu ngay am bu ko defee yéene boobu nag yàlla dimbale si boo amee yéene bi yàlla daal di lay jéggal say bàkkaar moo tax dafay allah yauda mu bañ a dellu ila zanbin si bàkkaar fii ma baqiya si li des min umri yi si dundam gis nga lim la wax waxu la li des si sa kanam ñaari fan ñetti fan nga delluwaat si bàkkaar wala benn at nga dellu déedéet yow li des si sa dund sa dund nag xamoo li si des ñaata la ndax yàllaa ko xam nit ki mën nay toog di wax fekk ni dundam ñetti fan a si des bu tuubul woon ba ñetti fan yooyu weesu day perte mën naa am dundam. Euh, ata si des mën naa am baatu yére xam nga nit ki yére mooy li koy sutur suturlaal wala li muy sol su fekkente ni jamono jooju moom mi ngi làmboo li nga xam ne moom mooy bàkkaar di ko def wala mooy yàlla si waxtu woowu la koy bàyyi moo mu ne inkaane su fekkente ni nekk na mu ta di ko làmboo moom mooy yàlla bihaa si moom mu ñëw nag di wax nag tuub moomu nan la koy defee borom dari ni wala yaxillu du dagan muk lahu ñeel ko mom mukallaf an yu axira mu yeexe attawbatu tuub manam daganul ci yow nga nan dama yeexe tuub comme leg leg ne ko nit ñi di euh da ngay nek jeune nek mukallaf am xel commencé di am bàkkaar yal di la bindal say tuyaba nga nan man ndaw la damay xaar ba ci kanam dedet waruta yéexe tuub waxtu wi wi mu ko yëgee rek daf koy bayyi waye warta wax ne du damay xaar ba ya ba ba nekk mag wala ba yàlla jubal ma moo tax mu ne walaa yaxillu du dagat mukk lahu ñeel ko moom mukallaf an yu axira mu yéexe at tawbata tuub te it walaa yaquulu du wax xataa yahdiyani laahu ba yàlla jubal ma du wax it damay ba yàlla jubal ma ndax yàlla kenn ku nekk daf laa jox xel daal di la euh, sàkk nga majeur mu daal di lay won lu baax nga xamé ko mu won la lu bon nga xamé ko motax mu wax ci alcorane inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafuran ñun yàlla ñun ñoko jubale yoon wi léegi nak yoon wi xamé na lu ba xamé na lu bon yàlla nak bu ko nexé mu wedd su ko nexé mu gëm su weddé ma fay ko lañuy fay ku wedd bu tuubul ba dé bu gëmé ma fay ko lañuy fay ñi ragal yàlla motax mu ne mukallaf du tok mukk di wax naan damay tok ba yàlla jubal ma wala yaqulu xatta yahdiyani llaahu du wax mukk ba ba yàlla jubal ma nee na loolu ko képp koo gis mu koy wax màndargay texe gi si moom moo tax mu ne fa innahu naka loolu wala naka koo kiy wax loolu min alaamati shaqaa i bi ngi bokk si màndargay texee di maandaam bokk na si màndargay texee di ku naan damay xaar ba nekk mag rek fi mu ne nii ndaw laa damay dox sama ndaw déedéet loolu màndargam texee di la moo tax borom lax dari nii كيف كو غيس موي واخ داماي خار با يالا جوبل ما ريك موم ميغي ام ماندار غاي تي خيت تي ييغوكو وال خزلاني اك توروختانغي وتمثيل بصيرتي اك دم غيس موي كو خامني ني ياو اماتو كيرسا باسكو نيت كي بو اماتول كيرسا ريك لو ني مان نكو ديف يونتي بي واخنا سي بن حديث اذا لم تستحي فاصنع ما شئت بو اماتول كيرسا لو ني مان نكو ديف موتاخ بو غيسه لي خيو تاي te amul won moy kersa mo néew légui si askan wi kon mom lolou mi ngi bok ci torox tangé waaye ak ñak kersa te moy tamsil basira damu gis mune batay warna si mom bi mu waxé nak tuub ak charti tuub ak likoy waral mu ñew nak di wax nag moom léegi làmmeñam parce que dafa am ay cër yoo xam ne nii cër yooyu ñoo gën a gaaw si def bàkkaar bokk na si làmmiñ moo tax moom bi mu ñëwee rek moom borom laxdari bi mu waxee tuub dafa jëkke nag si làmmiñ mu ne wa yajibu war na alayhi si moom kallaf xifz lisaanihi mu wattu làmmeñam minal al fahshaai si lu ñaaw maanaam na wattu làmmeñam ba du si wax lu ñaaw du si wax lu bon du si xaste du si wax loo xam ne nii dagganul si moom mu di ko wax wala yellul si moom mi di ko wax wal kalaamil ak wax ju bon wax ju bon nag léegi bari na ñoo xam ne nii bala ñoo am jàmm génne wax ju bon dangay gis ku def lu bon sax waroon koo nëbb ñëw si rajo di wax wax jooju kon looju maanaam di ko wax ñëpp di ko dégg kon wax ju bon si boppam borom lax da def ku ku ku nekk mu kallaf ba majeur wax ju bon waratul génn sa làmmiñ moo tax dafa ne wa yajibu war na alayhi si moom xifzu lisaanihi mu wattu làmmeñam minal fahshaa'i si lu lu ñaaw fahshaa nag yaatu na mooy wax njaalo walla nuroog moom walla lu bon wal kalaamil qabiih ak wax ju bon ba tey it na moytandiku lool moom mu kallaf muy ngiñ ngiñal passé moo tax mu ne wa aymaani talaaq ak ngiñal passé maanaam passé bala nga see giñ bul bul si gaaw giñ motax ndax bo xasse ba giñ si passé té passé ma tabbi wut boba day am lu war il faut nga kafara ngir giñ gog nga giñ bo ne won ma ngi waat ci yalla ni bis bo défé nangam ma fassé la bu boba lolu bis bu ko défé te waat nga fassé ma day dugg wala bu fassé ba amul il faut nga kafara moy waat gi nga waat moo tax muy wax ne wa aymaani talaax ak ngiñal passé mu kallaf da koy war a moytandiku si làmmiñam ba tey it mu kallaf dafa war a moytandiku di gëddub jullit ab jullit du gëdd mbokk jullitam ab jullit du tiital jullit mbo mbokk jullitam moo tax mu ne wantihaaril muslimi ak gëdd jullit léegi la nga gis koo xam ne ni yàlla daf koy may alal mu bew di gëdd doomu aadama yi waaye mu kallaf moom na xam ne gëdd jullit waru ko moo tax mu ni wanti xaaril muslimi ak gëdd jullit wa ihanatihi wala sax nga di ko doyodal maanaam di ko doyadal di ko xeeb di ko ñàkkal fayda loolu nag léegi fi mu gën a mën a feeñ mooy dangay gis ku nekk ci benn béréb di fa liggéey dossier ba kii danga nga ko koo war a wutal mu ñëw saa nga toppatoo ko nga koy doyodal di ko doyodal ngir moom xañ na mbubb mu oyof mi mu sol wala ni mu mel feek jullit la rek ak ku dul jullit sax waroo koo doyadal moo tax mu ne wa ihanati yi wala di ko doyadal wala wa sabbihi mu di ko xas maanaam jullit du xas mbokkum jullitam mu kallaf du xas mbokkum jullitam moo tax war na wattu moom si yii mu la wax war naa wattu ngi ñal passé war naa wattu di gëddub jullit war naa wattu di ko doyodal waaye war naa wattu di ko xas di ko ŋàññi maanaam xaste képp koo gis muy xaste rek mooy moom li ko lax Laxdari wax jëfewu ko te loolu warul mu kallaf warul ab jullit maanaam bu nee bu xasee ba wax mu kallaf rek mooy ab jullit lay waxal li ko war li ko warut la mu war a wax la mu warut a wax la mu war a def ak la mu warut a def nee na it wa tax wii fii wala mu koy ragalloo maanaam jullit du ragaloo mbokk jullitam maanaam doo ko ragaloo di ko tiital wa taxwiifihi fii xayri xaq sharciyin si lu dul àq sharia maanaam jullit bi si li nga ko war a ragalloo rek mooy mu jalgati diine ba sharia war a dal si kawam nga tiitloo ko pour mu mën a dellu ginnaaw waaye bu dul loolu rek waroo koo tiitloo si lu dul àq sharia àq sharia rek nga xam ne lii sharia ko tëral lii bu ko defee war nañ koo def nangam. nga tiitloo ko si loolu pour du ko def loolu rek nga war a tiitloo ab jullit waaye bu dul loolu waroo ko tiitloo si lu mu mënti nekk moo tax mu ne wa wii fii wala di ko ragalloo di ko tiitloo fii xayri xaq shariyin si lu dul àqu sharia léegi nag wax na làmmeñ kon lan moo ci des muy bët ndax gis nga yii ñoo gën a sensible si doomu aadama làmmeñam bëtam ndax bët mooy gis lu ne mooy gis lu baax mooy gis lu bon mooy gis bàkkaar mooy gis lu ñaaw moo tax mu ne bi nga wattoo nag sa làmmiñ lan nga si war a teg mooy wattu say gis moo tax mu ne wa yajibu war na alayhi si moom xifzu basarihi muy wattu ab gisam si lan la koy wattu minal nasare di xool ilal xaraam yi jëm si lu xaraam danga war a wattu sa gis ba doo xool lu xaraam ah léegi nag loolu jafe na ci mbedd mi ndax bo génnee ci mbedd mi lu haram rek ngay tek sa bët waaye nak la ngay tek sa bët te tayoo ko ak manam xol bokul ak gis xol mom man nga ko baña tay gis nak yow ya koy yow ya koy tay kon motax mu jëfëndiko al basar basar moy gis waaye al nazar moy xol bo génnee man nga yem si dara sa bët yem si waye boba kon da nga wara sajj sa gis motax sax alxuraan di wax nan qul lil muminina yaghuddu min absarihim yow yonent bi waxal ñi gëm yàlla nañuy wàcce seen bët bu ñu yemee si lu araam waaye it noonu it la ko santee jigéen ñi wa qul lil muminati yaghdudna min absarihinna na nga wax it ñu jigéen ñi it ñoom it bu ñu génnee ba seen bët yem si lu araam nañu sajji seen bët maanaam nañu sëgg bañ koo xool kon bokk na si li ngay wattu mooy sa gis ولا يحل دو دغان له نيل كو موميت مكلف اديان زورا مي خول الى المسلم ولا الى مسلم سيب جوليت بو دون بنظره في قول وخمني تؤذي داف كوي لور مانام ديكو خول قول وخمني داف كوي لور مانام مان غاكو خول بو خمني ني فيكسي كو غير تيتل كو ولا غا خيلو كو غير جيبي كو ولا غا خول كو خول وخمني ني بولا غيسي داي خمني يو خول وي غاكو خول du xool bu ko neex moo tax yooyu yëpp daf koy lor moo tax mu ne waroo koo xool xool bu koy lor lu dul ki ngay xool xool bu mel noonu mooy ab saay-saay illa an yakuna lu dul mu nekk faasiqan dib saay-saay ab saay-saay moom man nga koo xool xoolin woo xam ne nii da nga koy xool pour lii mu def mu bañ cee dellooti wala nga xeelu ko ngir jéppi ko si bon li mu def waaye bu dulub saay-saay waroo koo xool xool boo xam ne nii daf koy lor moo tax mu ne moom warul si moom an yanzura muy xool ila muslimin si ab jullit bi nasratin si xoolin boo xam ne nii tuusihi daf koy lor kon ginnaaw bi ñu tàmbalee si bët ñëw si si euh, làmmiñ ñëw si bët ba tey mi ngi ñuy wax mu kallaf naka la war a mel ak it lan la war a def kon dañuy taxaw fii suñu dars bu njëkk bi nga xam ne moom mooy dars bi ñu doon def ak yéen te seen bokk seen xarit seen àndandoo Oustaz Adama Diop doon leen ko defal di ñaan yàlla nañu yàlla may dégg ak topp wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallama tasliman ختم القرآن